yónni ñu fii ñu ànd ak euh, gouverneur u région bu jurbel Mouhamadou Moustapha Ndaw ànd ci it ak préfet département de Mbacké Mamadou Lamine mane ànd ak sous-préfet bu Ndaam Mansour Diallo ànd it ak doomu Mbacké di directeur général ba ànd ak honorable député Modou Bara Dolly Mbacké ànd it ak membre o conseil des collectivités territoriales ñi bokk conseil économique social et environnemental ànd it ak le ministre conseil Ousmane Isma Dioum ànd ak le conseil technique du premier ministre Serigne Abo mi nga xamante ne moom itamit Abo Sall ànd ak mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoom lañu ñu àndal waaye ànd ak chef de service yi nekk ci région bi ak euh, département de Mbacké di la nuyu sëriñu Abo di ñaan yàlla wëral la yàlla yokk fan yi nuyoo yooyu dañu la koy jébbal muy nuyoo président Macky Sall nekk sa taalibe nekk it sa xarit bu ñu la joxee noyo yi nga jébbal ko ki nga xamante ne mooy jawrinu kër gi muy sëriñ Basiru Falilu mu jébbal ko porte parole famille bi di sëriñ abdu Fattah sëñ Maam Thierno di ministre de l'environnement bokk ci kër gi moom i tamit mu ngi ci délégation bi nit ki boo jegee trop dañ lay jël moom taaliba murit la mbokk la ci biir yi la bokk gannaaw noyo yooyu dañuy nuyu kilifa diine yi fi nekk yëpp di nuyu Serigne Cheikh bu Cheikh Abdoul Khadr di ko ziyaar di ziyaare it porte-parole yoon wi di yoon yu murit di Cheikh Bass Abdoul Khadr bu ñu la nuyoo nuyoo yooyu day jàll ci taalibe yi jàll yit ci am di jàmm yi jàll ci sëriñ si jàll ci kilifa diine senegal yépp dañuy tënku nag ci kàddu yi nga xamante ne moom moo fi jiitu muy ndigal gàttal ñëw bëgg koo tënk rekk ci ñaar yëf mooy cant ak ñaan li tax ñuy sant nag mooy sa taxawaay yow xalifu sëriñ fal ci yar gi ngay yar doomu aadama yi ci diine ak topp ndigal ak liggéey te defe naa ne loolu yëpp ku ko dëxëñ loolooy dox dëkk neex loolooy taxit réew jëm kanam yar gi ngay yar taalibe yi ci am ji ko taalibe waaye ku wax liggéey it wax économie ku wax économie wax wër-gu-yaram te li koy firndeel mooy jóge bi ngeen fi waaj a jóge dem inauguré ji lu jëm ci post de santé loolu li muy firndeel rek mooy réew liggéey moom moo ko yor réew jàmm moom moo ko yor te ci loolu ngeen di yar doomu aadama yi kon ku jiite réew am kilifa diine yu taxawe noonu yoroon nga leen cant moo tax président Macky Sall mu lay sant ci sa taxawaay di sant njobootu sëriñ Fallou yëpp ci seen taxawaay di santit taalibe yëpp ci seen taxawaay parce que réew mi ñépp a ko bokk ku nekk da ciy béy sawaar pour jàmm am ku nekk da ciy béy sawaar pour réew mi jëm kanam la ca des mooy cant ak ñaan gi ma wax léegi parce que cant gi li koy tëj moom mooy li mu def démb mu tombe ak kazu rajab parce que nag ku dul taalibe it xam nga ne loo xamul xamoo ko waaye bul ne amul waaye yàlla amul hasard bu dajalee muy commencé mandat bu bees mu daje ak kazu ñun ñuy taalibe jàpp nañ ne tawféex la pour réew mi parce que ku ñu dénk bu doxee rek lay nekk tawféex ci yow te comme dénk nañ ko réew mi mu commencé yàlla na ko kun gi doon ànd ak waxu sëñ Fallou gunge ba réew mi jëm kanam am dal te lépp lu mu ci nar pour doomu adama yi yàlla def ko ah bu fekkee ne loolu am na digal nañu ne nga ñaan pour réew mi jëm kanam te jafe-jafe yi am ci réew bi ñu wër yàlla saafara ko waxuñu mu yegg si nag dañ ne mu saafara li nga xamante ne moom moo wër Sénégal mu am ay jafe-jafe am ay musiba yu fay xew te ñu xam ne bésu sëñ fallu ku ci dogu ni ko sëriñ bi waxee léegi yàlla dina ko def yàlla jàmmal senegal def taw feex ci senegal nga ñaan nit fii ñu jëm parce que yàggatul nawet baa ngi jub si yàlla sotti ndox mu sedd lépp lu nit ji mu sax te muurloo ko loolu nag jàpp nañ ne lu jëm ci mbay moo yor réew mi bu doxee rek lu bari ci réew mi dana dox ñu ngi ñaa nit képp kuy nekk sénégalais yàlla def ci yow jàmm te yàlla def ci yow dégg aussi ba sénégalais yépp mën a joxante loxo waxtaan xool li nga xamante ne moom mooy tax réew mi jëm kanam ñépp tënku ci kon sëriñ bi ni ma ko waxee léegi wax ji du gudd parce que li ñu tënk tënk nañu ko te képp ku fi ñëw yaa ngi ak sa yéene te ñu ngi ñaan ci barkeb sëriñ Fallou yàlla def ko di nuyu nag ñi fi teew yépp monsieur le maire de Touba sama sëriñ Cheikh Abdou Lahad Ka maa ngi lay ziar ci fekk bi ñu la fekk fii ak sa taxawaay di gërëm ñi nga xamante ci parti opposition la ñu nekk te ñu fekk leen fii ñoom itamit ñu ngi leen di nuyu di leen ziar sëriñ bi daal li ñu mën a tënk mooy ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm defal ko njaboot gi defal ko mbooleem jullit yàlla may it président Macky Sall bi ñu yónni yàlla may ko sago ba nga xamante ne lépp lu mu naar pour réew mu jëm kanam yàlla defal ko ko yàlla may ko jàmm loolu moo doon kàddu yi di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah